Mm-hmm. وردادا خاد للأغراد نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليم الحبيب ربيا قتل له كليتي في العلني وسري وهو اليقاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة زل علي من أرى تبديلا رفعت خدمتي إلى الماء ند ولي سوانا زا كل من فند هو النبي ورسول والخليل وهو الحبيب ويكاسر الخليل تسليم باق لا يزال سمدا على النبي ورسول أحمدا أبغى سلام الكريم سمدي على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أبغى سلام الكريم سمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من لا يجد يبتدر ناجيتك اليوم وابل اليوم ولي جعلت فتى فوق سومي جئت البس الغسيل ساكرا لك بي وقبلي غتفا لك زند القصيدة تعي سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ما سافعل وكلما أردت منك فعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرديت عنك باركت لي يا ربي في العروف وخيرها وجدت بالمغروف ملكتني بكونك الكريم ما قاد لي التفسير والتكريم أغطيتني من غلب أنسى كلما مدى من الدر ما تسلما كفاني من مالك فلاد بمال غيري زا كل من جاد أكرمني بقلق والله عاد ربي ولم يكن له بلاد نايا لا المكرم السمرات تناجي البي كفاني الكمد وجعل الأكرم أنفع الكرم ودرري بخير عادل سرما أسأل كوناتي القصيدة خارقة لغادة مفيدة يا خير يا خير مسل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام زل وسلم وتقبل ذا الكلام من على غارز الخروف بما يفوق زن من مغروف لنعزم الغروف خالد الربا يا من كفاز الغرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا خيو يا خيوم يا مكرم يا ناجاك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 يا فاردا بدل القلاق يا من بي فارق الإملاق وجدتك اليوم ولي رزاق كان بما تنمو في رزاق ما تني ما بي نفاق أني مع وجاءني النفاق ردتني ما سانع الوفاق بمن به تنارت الآفاق جارنا والبوت واليقاق بك كما بك تنالتاق بك الطوينا ما لو نساب هل عليك الاكرم الخلاق بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والي وصحبه وسلم الدماء لما الحفيظ المالي يغني عن المدافي لكل عبد القاسم يطلب غير الخروج في الوقون على الفتيس سكون والي سبي الخنود وسبي وسلم يا ربي سل في النار على النبي فقر النسار والي سبي والي سبي الفقار وسبي وسلم يا ربي سل في سباق على النبي سي سلاق والي سبي الفلاق وسبي وسلم سل وسلم في المساء وللي من قد ساب على رئيس رؤساء خير البرايا سلمين يا ربي سلي بسلام على النبي في دوام ولا لي وسب الكرام واقبل به منتزم سلي على الذين تبا بيا من بدر زوفا ما زي بن عنفا بهذه الماتم سلم على بدر جلا رجل القلوب وعلى سبيل المقامات العلا ويتبي بي قد قام قيد البترين بدا قيار سمرين إلى سبين تكبرين كالبدر وتنجمين من بي تدى الندال من بي تدى القتال من تعرف الرجال من رداء والوجمين وذلك يوم فلاح لسرداء ورباح لسرقاء وسلاخ لكل تاج المدمين من بي قد غفر سنوب من قد حضر قتال ورب ورام كبيرة كالأمم لقى سوى الخير سياب في سوي الدير سياب وان من أذن قداب صوت فاي إمامي تناسوا الموت معهم والكل منهم سجواب يبقي اللقاء يزرع لا بما يلقمم وقال له من قد هم أم صفي يوسف أدى القبار سدى بين جبان وكمين ثم النحى من السماء قال وجن معصوما إلى رئيس الكرماء بذنب غير وكمين أمد رب الأنام بجند أملاك نسام لعدد لا لعام أدو سوي تاسمي وفي ما إزورد قليل الممجد جبريل نعم سند فوق جواد سيسامي وسار إلى الكفاق ما سيوفي ورماخ وبسلاء وفلاق خلق إمام الأعظم وفيهما المحقق سيدنا الموفق أدق من قد بلا بلازم العالمين صديق المكبر كل ويدين موقرا النزال المزبر بالغريب عن العالمين وفيهم المبصرة بكل خير ومرا سيدنا المتمير يدر كل مدمي وفيهم من نكح بنت رئيس صلاح نورانينا أفلح بيات كل مدمي سيدنا المجمل عثمان من قد قدل وهو إذا يرتل كتاب موطن الأكزمين وفي مرجان الوزن أبو العزن والعزن باب العلوم والقدن أبو سراف الأنجمي زيدنا المكرم علي المعصم مد العدى العتم مع الأسى والوجمين بذلك اليوم فاصل بذلك اليوم حسن أنا أمان من وجل ومن عناء وخجل ومن جوى وندم به خلنا لجنان عن قسوة وانحوان به لنا تاب ثمان مع قبول الخدم فلنعمد الله على نجاتنا ممن قلى وكل سليم تلا بالمتفى المقدم يخاطب الجميل في وفي الآل العدال وزغبه بلا خمال بسلي وسلم يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ابنا صل على سيدنا محمد وسلم والي وصحبه وزد على به من أولياء حزبه ودرخب القلم وداني صحب الكرام إن يقول للمرام وليكن يا سلام بلا إننا ولا مين واذكر صلاتي على سيدنا باب العلا الغزير تقبلا بوجهك المكرم يا ربنا صل على قل نبي نرسلا محمد وزير علا أمتي وسلم يا ربنا صل على خير رسول فضلا محمد واسلا كتابتي وسلم يا ربنا صل على قل نبي قد علا محمد وتقبلا قديبي وسلم يا رب نازل يلا غير رجل بجلا مامري وجميلا علي بي وسلم يا رب نازل يلا غير زفين قبلا مامري وكملا قديبي وسلم يا رب نازل يلا ما نازل الوجلا مامري واسلا ما سرني وسلم يا رب نازل يلا غير سراج نقتلا مامري من غسلا ما تاني وسلم يا ربنا صل على خير منير أرسلا محمد من كملا مراد وسليم يا ربنا صل على خير بصير ولا محمد من أجل بصارتي وسليم يا أكبر أنو وما تدبر في عسى رب الورى ودوكة للوم وهو الذي من ثبت في ولم يلتفت تعمل يكن فتى عند سكون الأكرم وهو الذي من اكتفى بأعتبى ما قد كفى ولا يلاقي كل فى سبيل بالكرم أغمد ربي على كتابي الذي على كل كتاب نزلا بالكلكل وبالفم أغمد ربي على كتابي الذي على كل كتاب نزلا بالكلكل وبالفم أشكر ربي العظيم على كتابي الحكيم وفوت فيه بعلم طفي موسى تلفمي كتاب ربي الكتاب بنزل ذلك الكتاب بعزم من هتاب وجال بعد تقامي هو قليل وعبيب لي مغني لي طبيب به يعبني لبيب يدب غير لقم يا غير ذكر النسلا من غير رب أنزلا لن يتقود النزل من ذي البقاء والقدم يا غير ذكر قد بدا ممن تفاي بدا لي خلدنا رقدا زامني وقدمي عند رفيق الجنان يا من يسون للمكان وليطيب الجنان يا غير ذكر مقامي يا غير ذكر رتلا بفمي ساكر دلا زغل زوايا من قلم وليكن واكمين يا قدم يري ما قبس تدبرين ربي سفين في فكري بك بخير دوامي يا قد زكين قجمخ قد العلوم وقمخ لي عدايا ومنخ مني يا سات وأمين أنت سبيلي والأنيس لي قطفائق المقيس بخدمة الماء رئيس مكيسي بالمليمين يا قد زكين خدمها ما قلبي فمها قبل كون مفلحا بالمنزل المفيم بغزاد مالكي كوني نور وزن وسنجزاب الناسكين بمن جلا والمبهم وأن يقود للنبي في أبد بنقب سلام المقرب بالأندية والمقدم وأن يقود للنبي في أبد بنقب سلام المقرب بالأندية والمقدم شكري لرب كريم كان سكارا وأتج منه في الدار يا بكارا شكري لرب كريم كان سكارا وأتج منه في الدار يا بكارا سكارا كتبت سكرا وما قد رجعت به كوني سعيدا وسكارا وسكارا وجهت وجهي في سر النبي سندي للأكرم رافع الوهاب سكارا Rajaudu min wa ta'ala wa amali Wa rafa wal yam anni ni'ma kafara Rajaudu an yamu wa salati Inni wa fil bani ma'taliban Wa yasar jalla qaran Fajatani rabbi bil alai yabli an Awada lil nabi salli bi tazlimi bil kurama ya, ya malik al mulkini wa santa Fil mulki wal malakuti Ya, ya malik al mulkini wa وسط دون جوان في الملك والملكوت دار يلا يا ذا الجلال والإكرام يا ابن يما نتت الدنيا وأخرى منك يلا وكن لي يدر وكن معي وكن ليس يقن فوق مرامي بكن وكن لي يدر وكن معي وكن ليس يقن فوق مرامي بكن وجل بجاي آياتي سافيا لك بما لجور دافيا سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك قخل رجاءنا لي يا ربي كن لي وكن لي بردا قردي وما تمت بجا المنتقى أنني هل وسلم على المختار في الكرماء النبي نظم أفضل الرسل هل وسلم على المختار في الكرماء النبي نظم أفضل الرسل أنت رحيم سمد الرحمن المؤمن المؤمن المنان يكفي البلاء وجملة الوباء وزو إلى الأعداء كل داء نفعني من لم يكن بولد ولا بوالد فتاب قلدي على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بأهلي وسابي والعمدي صلاة سنار سنار سمد سبحان ربك رب ما دفن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم كاف عين سات هيم عين سين قاف كفاني الله من السباي كيد الخلائق إلى الرواي والعفيس المان والسلام السلام أسماء نزام يا حق يا سينق يا سريم يا حي يا خيوم يا سميع عجل على كمن أراد النفس حمق في سائر بن رمزي سني كما سنت النبي سر الخلق صلى عليه اللهم على الفلق سني كما سنت النبي سر الخلق صلى عليه اللهم على الفلق سبحان ربك ربي سدي عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم القرآن أكرمني الأكرم بالكتاب بلا معاداة ولا عتاب لقنني تفسير وتأويلا مخل لدي خلد التنويلا خيرات القرآن للجنان لي جنة طاب بها جنابي رفعني القرآن رفا قفدا من ساءه تقدمي فانقفدا آتني ذكرا حكيما من جعل عمري أكبر رداء فانجان إذا قررت أو كتبت عرولا إبليس فورا ما من تقولا ناجاني المنسن بالقرآن حتى قدرت مورد زماني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 وما الشمس المدية في دعاها ولا الخمر المنير إذا تلاها بأبغى من معاسن وجه شيخي إذا مال الورى يوما جلاها خديم المصطفى من لا مزايا لآل العلم إلا قد نواها هو الأستاذ أحمد من هلاه لدن سارت لنا أخفت سواها إمام ماجد ندب همام ديا جلجل عنا قد نفاها سيرات للمعيمن مستقيم سبيل للجنان لمن بقاها رياد ندى وتؤتي كل بإذن إلهي أبدا جناها لهو يمنا على كل يمن ويسرى سادنا يسرع نداها هوا رتبا إساما ليس يبدو لخير الأنبياء رتب وراها ملاس فاق في قلق وقلق وكم أبيات السن قد بنا لو تمات مفاقر كل قوم تعالى في المكارم مرتقاها كريم أريي خير خدم على كل الأكارم في علا فتنعيا لأمة قير عاد سبيل الحق يهديهم سنا وأتم جايا وسقى سميا على أن العراة معا كسا وفود لا تأتي من خرا لدير سيق تطلب من قراب فيوتيا لزي ترجو وتاوى وينعن سدابا عن فتل سر المامد بعد التين على أن المسمة قد توا تل القرآن في سر وجار على أن الأوامر قد تلا وكمين من وأنوار هواها وأسرار وهاها في وهاها لو قدم على الأقيار تعلوم كما علت السماء على سراب وقد جاز العلاس فقارا وقد فاق الأكابر في قساب فتنمدى رسول بفايقات هزان رايقات في علام ولا سمنا جو فعبوا أسماء نوال فاق سوبا في عياب ولا قاب من هدى حلم ما لم يكن يلقى سيوق من هدى فعيا للعسى سبرا إلى أن قد ارتفع السيول إلى سباب أتاه نصر من رب البرايا فتابت نفسه لما جسام خديم المصطفى المختار عاصم خزائن خد سكا بكم سسا خد عدا إليك أقو قتايا يروم بجايك العليم يا عروسا قد زففت إليك بكرا فإن تقبل فقد فازت يدا على أن المدايا عند مبدأ مناقبك العزيمة منتاب في نور وجهك ما يغني عن الخمر وفي يمينك ما يغني عن المطر وفي فؤادك أنوار ومعرفة وحكمة وهدى تغني عن السبر فأنت يا أيها البكي جامع تات الفدائل بير العلم والأزار خوز السمان سراج الكون روما خليفة الله في بدو وفي عدر على عارف الوسر من العارف الوسر من العارف الوسر ابن العارف الوسر التاير سير من التاير سير ابن التاير سير ابن التاير سير المبعد الكدر ابن المبعد الكدر ابن المبعد الكدر ابن المبعد الكدر السائر العابد العالي مكانته هند الإله وهند الجن والبصر بعر الولاية مشباه السريعة ينبوع العقائق عين السر والخبر بعر الولاية مشباه السريعة ينبوع العقائق عين السر والخبر عون لمنتصر رو لمقتصر جبر لمنكسر يسر لمناصر إن كنت عرب أو كنت ساخرب يمي مساعد تاما مع سفر أكرمي من ولين خروة سنانين لم يبق سيارت من العلا ولا مسر لا تبقي ما يستب من أهل ولا بدلا به فما هو إلا قرق متدر وعادتي بأسنائن بدوام له فهو بتي بسنائن بدوام عالم وعادتي بأسنائن بدوام له فأوبتي بسلاء بدوام عارم خرجت من الجلف لله في سفر أكرمي سفرا قد عاس كل يد خرجت في السبت في شعر ربي دوان بجيسس ولجيوال جيت ليس ردم بكوك قلت وجيت بدلوك وفي سفينة البر خد سافرت ساسدديم وقد أقمت بالنار هي لن تسهل بها دع الدلال من الشك والفنان ثم ارتعلت جيرا في سفينتها تلعن دكار باسم المؤمن الأبد وقد أقمت بها ما زع ربك في هبس المحيمن فردا بنفوس فدم ثم ارتعلت باسم الله معتمدا عليه والقلب لم يسرك ولم يعيد وفي سفينة بار قد ولدتك ما يختار مولاك موت الأمن والرقد تلك السفينة لم يسكر إلهك فيه قبل سكرك في قرب وفي بود خدمت فيها نبي المصطفى علما بالنور فكر عزيم الفيد متقن أتابك بما قد فاق سلك من فتح وبسر وردوان ما سدر وقد نزلت بلا ريب كناكر كي تنحو المناكر يا من فك كل هادم وفي قرم بزا قد أبديت خارقة من الخوارق تمو كل ما دمر فعرض داوم ما عرض لبر ولقد درت بأنك خوص الله في البلد عريت بافلا آيات مبينة بأسنار الهدى لكل متقدم وبالعدو كباتر فل مكيدتيس بكبل بس كادسا قبل البلاد وعند قلوى أتال الله عمرك يا سمسلو دا فستا بالردوان والمدد وقد رجعت بما لم يرجع النبي شو العج والقصف أو سو تجري من رفد وجيت رامة رب لا سريك كلام لسالم الواقيم سبق ومختصر قد ركلا مراسا يسجر به تاوي إليك وفود الناس إن تفدم سلا سوانا وقلنا خيرنا بك يا سيقي ولولاك ما قلنا ولم نصرم حق على كل شخص مؤمن فكرا أن يمل الفكر فيكم كل ما عمر فكل مرء مجيد مدى خيركما فإنه عند أهل العلم لم يجرم لكن سناؤك يعوي كل مفلقنا ولو بألف لسان ثم ألف يد يا من يروم سبيا لسيق آمد بنباب رمت المعال فسلم لسيق آمد بنباب ما ولدت قتونسا لنا كأمد بنباب إلا المعارف كلا من بار أمد بنباب بلبا خطب الوجود جميعا في العصر أحمد بلبا الأولياء النجوم وسمس أحمد بلبا وعمك مثل عيون والبار أحمد بلبا إلا سيوخ جميعا ريال أحمد بلبا فليس يهلك مر يهيب أحمد بلبا وليس يسعد شخص إن كان باخد بلبا وليس يبصر تمز إلا بأعين بلبا خوس وخيس مريون بسرى سري بلبب خيس القيوس والليس ليوس أحمد بلبب سمس سموس والنفس نفوس أحمد بلبب بحر البار وسجر صدور أحمد بلبب إلا الفداء إلا كلا لسيق أحمد بلبب إن كنت طالب علم فسب لأحمد بلبب أو كنت رائع مجور فسرى لأحمد بلبب أو مخرما برساد عليك أحمد بلبب وإنارتك عموم يمم لأحمد بنبا وإلا كقطوب يلقسك أحمد بنبا نور المريد ونار المريد أحمد بنبا ليس الهداة وقيس الهداة أحمد بنبا لدين الله سرور بسيق أحمد بنبا فدما قال جوال باسم أحمد بنبا من لم يعدوا فكيف ينكر بنبا لنا قرائب فضل بسيق أحمد بنبا هذا المناقب ترا سعاب أحمد بنبا علي ثم عليهم رضوان مالك بنبا علي ثم عليهم رضوان مالك بنبا te mu yaatoo yaatu ci xéewal gii nga xam ni Serigne Moussa Diop moom Serigne Abdou Wahab Diop mii te yéene ñëpp yiw rek tax mu yaatal ko ba ñépp man cee bokk si te li jiitu tey mu nekk liggéey bu am solo boo xam ni guddi ajjuma la daan baaxoo doon fii ci biir kër gi ñi miin kër gi ñëpp miin nañ jataay bu am solo boo bii nga xam ni moo daan xew fii ci kër gi moo tax ñu bëgg bala ñuy jox kàddu gi jëmm ji toog nga xam ni bëggul dara lu may ngërëmul sëñ Bamba soo ko séenee muy dem jëru ngay laajte ndax ci ngërmaane sëñ Touba rek la bëgg di dox muy sëriñ seex Lappé mii nga xam ñu baree bari miin nan ko ci keppaaruk sëriñ Muntaxa te ñu baree bari miin gën ko miin yeex na noo xam ni Mbàkke la sant ndax yéene sëñ Muntaxa ndam moo tax ñu bëgg bala ñuy ubbi jataay bi ginnaaw bu nu ñaanalee sëriñ Muntaxa ba pare mu yàgg fi lool te ànd ak wér sëñ Moussa mii def lii itam ñu ñaanal sëriñ Cheikh mi bu baaxa baax te xamni sagal nga sëriñ Moussa lool waye sagal nga askanu sëriñ Moussa wépp ndax sama mam daf ma wax naan ma ko xamul tiranga rek dañ ko defalut sa mbokk waye ko xamul luy gatch ak toroxtaange rek dañ ko def sa mbokk li nga def nak defal nga ñu ko ñun ñëpp mbakk ñi ngi lay ñaanal yëngu géeg dal gépp yalla nang nga ci daje ngeerum sëñ Touba togaay bi yag na amo jot waye am nga jotuk sëñ Moussa mi am nga jotuk talibé yëpp kon ñi ngi lay ñaanal sa yëngoog sak dal gep yalla nag ci dajé ngeureum seigne touba seigne Moussa nag ni mu mel rek ni la wara mel ndax ñi nga gis ñepp ñu tok fi di ay doomi soxna ku xewle ci lu bax seigne Moussa mi kenn du ko fa jëkk kenn du ko fa mujj ko ak alalam di bok ak ñom bari yu nit nak ak man saw nit na nonu way duñu ben ndax tubaarkàlla ay nit yi qualité kep la fi dajélé ñi nga ci course yi ñi nga ci durus bi té non la ko woté won té non la ko jotalé yenen kaddu yeen ci laltaay bu seigne Moussa ñëwé man wara def ci li dess ci jotaay bi dinañ ko gëna a waye loolu la ni won rek bala ñu jox señ Moussa mu lay ubbil jotaay bi ñu laltaaye loolu seedeel la ko mu dugg ci sa nopp ndax xam nañ ne li ni wax señ Moussa jombut yaa ñu xam ndax digganteem ak señ Mountakha bari na lo ci xam bari na loo ci mëna sédé waye waaye comme que ñun amuñu téméré at waye dugg na lopp téméré buntu kër di dajeeg mom ci xew-xew yu bari ci dëkk bi waye fuñ ko fekk sagu ci mom dina yalla ñu sédé lool ci sa kanam bala mu jël kaddu mbacké lool rek mo nekkon yi lay ñu ubbi ñi ngi jéggul musa Moussa wa rahmatullahi wa mbooloo mi ñun moom amuñu kàddu waaye ku am gan gu tedd bu bàyyi ko ci ku tedd indi lu tedd war nga koo dalal jox ko wàccuwaayam jëmm ji nga xam ne moo toog nii ci sunu wet su ñëpp lay sàmp wax na ko léegi man su ma ko doon tënk rek te wax naa ko léegi moom nag xëy na dafa ma dàq wax ndax man li ma yéene ci xol bi làmm yi du ko mën a leeral waaye xam naa ne tëlul dara bëggul dara lu dul lim bëgg te am na ko bu yàgg ba noppi mel ni ku koy wut moom mii muy ngërëmul sëñ Tuubaa foo ko gis rek ci ndigalul sëñ Muntaxa la nekk ak ci bëgg-bëggam ak luy seral xolom ak luy sagal nun taalibe yi ci suñ diggante ak Cheikh mun Mountakha moo tax ma ne ko sëñ Mountakha moom keneen la waaye yow ci boppam yaay suñ mun Mountakha te loolu ma ko waxit lu ma gëm la loo xam ne lu bët tegu la ñépp mën koo seede fii mu ñëw nii tey jii de coono yim toggoo ak lim dajale te loolu ci la dëkk lépp ngir jëmmi sëñ Muntaxa ak jëmmi sëriñ Touba mi nga xam ne mooy sëñ Muntaxa loolu amul benn murit bu ko umpule amul benn murit bu ko umpule su ma toogee fii ne nag ñun waa kër Cheikh Ibrahima Diop almasar yi nag ñepp koy ñaanal ñepp koy bëgg ndax taxawu gum nuy taxaw ci suñu digënté ak Cheikh Mamadou Muntaha té li ma wax dañu né ci ëttu Cheikh Ibrahima Diop Al Mashari rek waye bo démon ci ëttu geneen kër ci ëtti Seigne Touba yi li ma wax ni moy liñ jëf lim jëflanté ak ñom moy liñ jëflanté ak mom lool nak dama ko mënta ñaka wax ndax bu waxé ba nopi duma ci tek kaddu motax ay bi sa ñew gi kawe na ci ñun lool sa mbokk yépp ngi ni tok li tax nak ma ñemee wax né sa mbokk yi li nga wax légui ci biti motax ma wax waye kon sax duma ko wax ndax am kaddu gu guñ ñu légui ci biti ci kaddu yo jokkalante ak Cheikh Mouhamadoul muntaha ci lu mel ni ma présenté mbokk yi mu ne la Cheikh Mouhamadou Mountakha ne la ah mbokk gi da ma cee bëgg a da ma cee bëgg génne waay nga ne ko ah Mbàkke man bàyyil ma bokk ak ñii yow moom doo mbokkum kenn siquma ak yow ak mbokk loolu kon leçon la boo xam ne defar na wala leeral na yoonu képp ku bëgg a aw ci taalibe te bëgg a jariñu ndax loolu caxul cax la woo xam ne ñoom Ablaye Samb ñii bu ñu ko doon tekki ren ba déwén mën nañ ciy génne ay njariñ kon sëñ Touba du mbokkum kenn du rakki kenn du du magi kenn du nijaayi kenn du bàyyi kenn moom sëriñum ñépp la kon sëñ bi soo teewee fii ne danga fee teewal moom du Mamadou taxaa kon de ma moom du mun taxaa teew na waaye Cheikh Mamadou taxaa teew na loolu nag du benn baat Cheikh Mouhamadou Mountakha tewna na Cheikh Mouhamadou Mountakha tewna na netti lo xamne dama koy faral di netti lilo. leg sax am mbokk mu ma tere waye dama koy netti lu bari yow sax deg nga biñu mujjé ki rek ma da ci waxat ak seigne bi seigne Mountakha ci bopam ndax lele nit ni ma seigne bi lolou danaka diko wax ci yoy day jur waye lu seigne Touba def Chat amu ci wal cat amut lu amut ci lu seigne Touba pare lu sëñ Tuubaa noppi laa wax de dama dama dama Cheikh mu Mountakha dafa am lu ma mës a liggéey loo ma ñëw di ko jébbal booba daanaka soriwul waxtu wii nu toog ñu wecci kon mu wecci kon bu ñu ko dégloo mu wane ma yi mbégteem ak sedd xolam ci liggéey bii mu may liggéeyloo umpul sëñ Cheikh mii mu daal di wax cofeel goo goo xam ne da koo wax jëmale ko ci man ma ne ko am ah, mbàkke day loolu de bu ma ci sañoon a wax mu ne ma aha kay sañ nga cee wax ma ne ko cofeel goo bu ma ko sañoon a wax de dama naan sama yónniwut ci cofeel googu jëm ci man waaye li ne ci sama xol ak cofeel gu gi nga xam ne moom laa la ëmbal te sama benn cër amul benn cër bu lottul ci wone ko nga xam ne benn cër maanaam cër yëpp a ci wone cofeel googu ma ko te cofeel gii nga xam may wax indaaleel naa ko murit yépp murit yépp la bëgg ñëpp nii lañ la bëgg jullit yëpp la bëgg te loolu sëb cër la ndax yaa ko liggéey ci biir wax jooju du wax ju nuy nettali ci biir mbooloo waaye ma ne ko soxna si de dafa tollu ab diggante ma bëggoon ma ne ko nag docteur yi nag wax nañ ne ñeenti weer ci lay toll xaw ma góor la denc xaw ma jigéen la denc waaye dama bëggoon nga tuddal ma ko tey mu ne ma ah ma ne ma delluwaat ca mu ne ma loolu de ma si dégg ne ko ah sëñ Tuubaa de man nga ko te wax naa la li ma bëgg keroog sëñ Fallou rakk moom sëñ Fallou sëñ Abdou Latif di rakk sëñ Cheikh mi maag moom ñoo toog ak sëñ Muntaxa mu ne ak sëñ Xaadim Diop mu mu ne Xaadim mu woo woo woo xaadim mu ñëw mu yónni ko sëñ xaadim dem ñëw indi biteel mu téye biteel bi ñaan ci li muy ñaan taf li ne ma demal na ko ndeyam naan ci guddi gi ba mu ko naanee la ma wóor ne góor lay doon ndax mooy sëñ Tuubaa te lu mu bëgg mu am ko mooy Muhammadul Muntaxaa mii ma ko tuddee loolu nag di ab cër boo xam ne euh, li ma sëñ seex euh, doomam wax ne ma yow li nga def da ngaa siif sëñ bi da ko koo siif ndax sëñ Muntaxaa daa doon jëmm joo xam ne dafa fess del doon seigne touba waye ba nopi nak manam dafa dafa doon seigne dafa dafa manam lim doon dan neub bopam di wane seigne touba manam léppam da ko neub di wane seigne touba yoyu sax ñu nga gis mu di mu di ko def daa danaka danaka daanaka jëm ci sax mu mu mu mu jëm neneen ndax mom seigne touba rek lay joxañ taalibe neub lepp bopam ta mom moy seigne touba tubaa lima ci jub lima ma jubloo wax nak moy seigne muntaha mom kenen la waaye ji jiitoog moy seigne muntaha ndax mom la wolu ci leppam moy kaddom moy ay tankam fum tew seigne muntaha tew tew teew na fa sunu suñu mom nak mom mom moom mii mu su ko wax waye na ngeen xamne luma mom bëgg wax rek te yene ko ci digeunte mom la sun mom la sama sama kilifa gi ci bir sekk ak mom di seigne Cheikh Ibra yalla nako sun borom yagal te dolli ko wér mom moom mi nga xamne mo tok jotaay Cheikh ibrahim al almasari tok jotaay seigne Abdou Wahab di sunu serigne ñu suku jébulu ci comme ni talib yépp suké jébulu yaakar noonu loo séq ak moom loolu la séq ak ñëpp doxinam rafet ay tànkam dëngul te doxiwul benn tànk moom sëñ seex mii kon sëñ bi nag ñëw gii nga ñëw doy nañu bis maanaam yëf yi bu yemoon fii sax ñun jàpp nañ ne daje nañ cee ngërëmul sëñ tubaa ba noppi te loolu dong lañ ci doon sàkku sang yi toog te ma ne ñooy sëñ ku ma ci ku ma ku ma ko ci ku ma ko ciy wax rek dama naan la ñaanal ma rek ngërëmul sëñ Touba liñ ciy dàkku rek ñu jam ko kon nag daa mel ne la ma doon ñaan dafa am waaw ndax sëñ na ñoom ñii nag lii ngay seen lépp say say say rakk lañ ak say doom ak ak ak leneen ak leneen maanaam say mbokk lañ ci ci na nga ko waxee ba ma ñeme ko wax waaye ñoom ñëppit am nañ xol bu sedd ci sa teewaay gii ndax musuñoo ne ci dara musumaa ne ci dara te ànduñu ko ak man ànd bu rafet lan ànd ñii ñëpp dañoo soppante bëggante fi ne foo gis ñii bu keneen xewlee ñii nga gis fii ñëpp da nga leen fa gisaat ñii nga xew fii xew xewle fii bu sëñ Mamour mii xewle woon wala sëñ sëñ sëñ naa mii xewle wala sëñ Yidaali Njaay ak sëñ Abdou Wahab mii ak ñeneen ñi ci ginnaaw ñii nii da nga leen fay séenaat kon Mbàkke na nga leen ñaanal ñoom it ñu ñu ñu ñu doon seen maam ñun nag suñ xol daa sedd ba xamuñu lu ñuy wax ci sa teew gii ba tax na ñi ngi la doon dalal di faral sax mel ne lu yëkkati kàddu te bëgguñu woon a kàddu waaye xol bu sedd mënta weesu xol bu sedd euh, bég nañ jataay bi nag bii mooy jataay bi nga xam ne moo njëkk mooy première édition bi fas nañ yéene it bu buñ ko suñ borom fekkee la ak jàmm mu gën a yaat li wundu bis bi it guddi ajjuma la goo xam ne guddi ajjuma gu jot ci alxames ju jot dañ koy dañ koy dañuy daje fii ci kër gi di durus léeg-léeg ñu yëkkati kuréel yoo am na kuréel yoo xam ne ñoo koy awantoo lim biñ fiy jàng ci xasida li muy bari bari bari Sëñ Tuubaa lañ koy yéene yéene ko Cheikh Mamadou Mountakha mii toogal ko fi looloo taxoon ñu sos ko ak njabootu sëñ Tuubaa gi def nañ ko ñaari at nag soog a taxawal bis bii kon bis bii moom mooy première édition bi am ngont nag lañ ko wax moo tax mu demee nii waaye fës nañ yéene bu nu ci suñ borom yóbboo yóbboote jàmm surne xasida lay doon ance ñu bëgg nag nga ñaanal ñu ñu am ci ndam daje ci ak ngërëmul sëñ Tuubaa lii leen bëgg mooy suñ bëgg-bëgg tey mooy suñu bëgg-bëgg ëllëg bëgg nañ fu Seex mun taxaa déggee suñu tur xam ne ñu ngi ca tool ba nga xam ne bu sañoon kuy taalib Sëriñ Tuubaa ca ngay nekk yor sub ëllëg di bay ndax moom moo waxal boppam ne damaa bëgg kenn ku ne fa nga mane ci yoon wi nga ne fa di fa di fa di bàyyil Sëriñ Tuubaa ci ci ci ci lot wet googu rek la ñuy làmb fii am na ay néeg yoo xam ne yu fi ne ci kër gi la nit dëkku fi ay xasida képp fi dëkk néeg bii ca la bokk néeg bële ca la bokk benn bi néeg Seex Mamadu Muntaxa laa ko tuddee benn bi amagul tuur loolu danaa la ko seereel nga xamal ñu ne ñun sëñ bi guddeek guddeeg bëccëg suba ak ngoon làmbatu ngërëmul Sëñ Tuubaa dong mooy li ñu yëkkati néewuñu ci leneen leneen sëfuñu lu ñu nuru nuru nuru nuru lu ñu saf ak loo ko gis ñu neen wallaahi alxasim leneen sëfuñu lu du Sëñ Tuubaa lépp loo xam ne nag waaye nga koy xëccoo ak nun lu dul sëñ tubaa jëlal bàyyee naa la ko man te bàyyee ma sëñ tubaa boo boo boo ñàkkee fayda ñun sëñ tubaa képp mooy li nga xamante ni mooy moo mooy lu ñu ñor yëguñu dara dara nu dara safuñu lu dul sëñ Touba loolu nak dañ la koy seereel rek ñi ngi ñaan nak Cheikh Mamadou Mountakha yag fi tewer yow mi nga yag fi tewer yag ko leggeel ta laq ngërëmal ni ngi ko làqe ba noppi di melne ne lu ko lu ko lu ko làqu ñi ngi sakku it mu ñaanal mbolo mi kenn ku ne la ngay sakku ci lu baax suñu borom dajale la ak yow lolou lañ newon ay cadeau la yo xamne ne su ko ñaka sanni bala nga sanni cadeau yi ndax bo waxe ba noppi dootuñu waxati Cheikh Mamadou Muntaxa nag lim bi ñu fi doon jàngit ñu ngi ko yéene di ko yéene it njabootu Sëñ Tuubaa gépp ak taalibe yëpp xam naa kon ginnaaw asamaan si néexul te jataay bi yàgg na ñu ngi koy tuub nag ñu ngi koy tuub bu baax a baax a baax dañuy wàccee foofu suñu kàddu ba nga noppi rek ñu wéye liggéey bi euh, bis bi it euh, sëñ sëñ Abdou Samad moom sëñ Soyebu dafa doon koo xam ne dañuy dañoo dañoo gisit moom it ni mu joxe war ma sëñ Muntaxa lool fonk ko lool waxtu wu nekk muy xeeñtu aka won taalibe yi lu ñu war a joxe war ma sëñ bi loolu mu cofeel googu ak ak ak murite googu ak yoon woowu ñu ñu royee ci jël bis bi tamit moom it jox ko ko ab cër tuddee ko ko waaw moom moom moom moom lañ ko tuddee xam naa dana eh, ab délégation sax ñi ngi ci yoon wi ndax yàlla daa dogal sax mu am galfan mm, tukki tey jii waye ñi ko fi teewal inshallah allah ñi ngi ñew ci kanam loolu ñu seereel lako ñi ngi la koy seereel bu baaxa baaxa baax soxna Mame Bousso Diop doomi sëñ Abdou Wahab la sëñ maag mom ñoo bokk wenn wajuru mu nekk ci koñ bi momit di fi liggéeyal sëñ Touba liggéey bu rafet yor fi daayira soxna jaara jigen ñi yépp it ànd ko ak mom di liggéey liggéey bu rafet seen liggéey bu rafet bobu motax ñu ne ñoomit nañ leen jox ëpp ci dara jaali leen ko du caagéen yi nak yefi adina wala dara waaye awantoo wuñ ko maanaam saa bu dikkatee tamit ñoom noon noona lay demee awuñu lu ciy nekk di wër wër loo boo liggéey kii ak boo liggéey di wut àdduna lii bisub xasida la boo xam ne dañ ciy dañ ciy dañ ciy sàkk ngërëmul sëñ Tuubaa wutuñu ci àdduna wutuñu ci alal wutuñu ci cër wutuñu ci tur wutuñu ci daraja sëñ Tuubaa rek lañ ciy wër ginnaaw nag gis nañ ne ñu ngi ci yoonu sëñ Tuubaa ñu féetale leen loolu loolu rek lañ ci lañ ci lañ ci lañ lañ ci doon leeral mbàkke ñi ngi jégalu ci guddaayu kàddu gi nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëñ bi mooy nuyoo mu ni asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu sama kilifa yi ma fekk yëpp. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu fi fekk yëpp. di leen dalal di leen sant di leen gërëm. nee na mi ngi leen di dalal di leen sant di leen gërëm. waaye maa ngi yëkkati nuyoo bu Cheikh Mamadou waaye nag mi ngi yëkkati nuyoo bu sell bu ci sëriñ di ko jëmale ci Cheikh Ibrahima Diop. di ko jëmale nag ci sëriñ Cheikh Ibrahima Diop. borom kër gi mii borom kër gi. nekkal fi Ibrahima mu mag. te nekkal fi Ibrahima mu mag. nuyoob sëriñ Muntaxa bu ñu ko yëkkatee muy nuyoob sëriñ Touba. nee na nuyoob sëriñ Muntaxa nag bu ñu ko yëkkatee muy nuyoob sëriñ Touba. dañ ko war a teg ci loxo ki fi nekkal Cheikh Ibrahima Diop. dañ ko war a teg ci loxo ki fi nekkal sëñ Cheikh Ibrahima Diop muy sëñ Cheikh Ibrahima Diop mii. waaye nuyoo boobu nag. waaye nee na nuyoo boobu nag. ñu ngi koy teg ci loxol sëñ Moussa mii. ñu ngi koy teg nag ci loxol sëñ Moussa Diop mii. mu teg ko ci loxol Cheikh Ibrahima Diop. mu teg ko ci nag ci loxol sëñ Cheikh Ibrahima Diop. maa ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Maodo sëñ seex nee na moom day mi ngi leen di nuy waaye nag ci turu sëñ sëñ Muntaxa ndawam sëñ Cheikh nee na moom day ndawul sëñ Muntaxa la liñ ci wax lépp dara nee na liñ fi wax lépp nag jërul mu ciy dolli dara amul jenn nee na moom day amul jenn jitte wutul dara wutul dara sàkkuwul dara day sàkkuwul dara lu dul ngërëmul sëriñ Tuuba lu dul ngërëmul sëriñ Tuuba te ngërëmul sañ Touba loolu yi muy wut nag sëñ Muntaxa mii la koy sàkko ndax moom day liggéeyal sëñ Muntaxa rek loolu yi mooy yitteem nee loolu moo digg yëngoom loolu it moo dig dalam nee na moom de fépp fu mu jëm loolu it la fay la fay xend nee na lu fu mu jëm it loolu rek moo ko fa yóbbu nee na ginnaaw nuyoo gi nag ak cant gi xanaa dañuy dolli rek ay seede te nee na seede kat wolof day wax ni nett li moom ci gémmiñu boromam la dàqe nee na seede yi nag mi ngi ko jëme ci diggante sëñ musa Diop mii ak sañ Mouhamadul Muntaxa nee na sëñ sa ngont mii ne moom day wóor na ko ni سرين منتخا دي فام نيك خولم سد ناج خام سين ديغنت ناخ خام غيمو خام سا ديغنت اك سرين منتخا موتاخ بيم مكو واخه موتاخ بيم كوكو واخه خامو غمو نوي دامي تام تي موم مي توك بوبا خاموغول نوي دامي دانا فاسنا ييني لوم خات خات ما نيو تيو داني فاسنا ييني داي لولي لومو خات خات دينا فا تيو تا بوما في تيو يتام تي نينا موم مي داي بيمو تيوي في يتام li ma fi séentu fi li mu fi séentu woon de loolu yi rek la fi fekk. mooy li nga waxal sa bopp léegi. te nee na sëñ Moussa mooy lii nga waxal sa bopp léegi. boo xam ne Serigne Touba rek muy jataay boo xam ne Serigne Touba rek la. Serigne Touba fiy sàkku. Serigne Touba moom lañ fiy sàkku. lañ fiy woo. Serigne Touba moom lañ fiy woo. moom lañ fiy liggéeyal. Serigne Touba lañ fiy liggéeyal. te loolu. te loolu. mooy nga wax sëñ Moussa mooy li nga wax léegi. Serigne Touba rek la yitteel. ni Serigne Touba rek moom moo la yitteel. da ngaa woote ci Serigne comme nag da ngaa woote ci Serigne Touba. ñu wuy si la ci Serigne Touba. ñu wuy si la ci Serigne Touba. buñ fi fekkee ñi wuy si ngir Serigne Touba. buñ fi fekkee ñeneen ñi wuy si ngir Serigne Touba. war nañ leen a jottali cantu Serigne Mountakha. war nañ leen a jottali nag ki fi nekkal Serigne Touba. cantam muy Serigne Mountakha. cantuk sañ Mountakha. cant gi mi ngi ko tàmbalee ci sama toog. nee cant gi mi ngi koy tàmbalee ci mbokkam yi toog. kilifa yi kilifa yi fi daje. sant nañ leen bu baax ci turu sëñ nee na sant nañ leen bu baax ci turu sëñ Muntaxa. ndax lii sëñ Moussa seere ci seen diggante. ndax lii sëñ Moussa seere seen diggante ak moom. ànd bii ngeen ànd sëñ Touba rek tax. ànd bii ngeen ànd ak sëñ Moussa mii te sëñ Touba rek tax. ak nii ngeen ak nii ngeen rafetale jataay bii. te seen jataay bii wane ko. te seen jataay bii wane ko. nee na lii de lu neex sëriñ Muntaxa la. nee na sëñ Muntaxa bu sañoon yéen njabootam gii. fi waay mën a nekk. fu fi waay mën a nekk. di ko sàmmale ak di ko jàppale ci liggéeyub di ko sàmmale ak di ko jàppale ci liggéeyub sëñ tubaab bi. donte xam na ni ca la ñëpp nekk it. donte xam na ni ca la ñëpp nekk it nag. waaye ngir wane yéeneem rek. waaye ngir wane yéeneem rek. ba liggéeyub sëñ Touba bi. ci liggéeyub sëñ Touba bi. sëñ Mountakha daf koo jàngale ay yoon. nee na liggéeyub sëñ Touba bi sëñ Mountakha da koo jàngale ay yoon i yoon. ba ci bi ñuy teg xeer wa ca université ba. ba ba teg xeer wi ca université ba te te birig bi ci am ab sër. te birig bu ci am ab sër. birig bi ñu teg ko ci ambalan mbalaan. birig bi ñu teg ko ci am mbalaan. njabootu sëñ Touba ga fa nekk ñëpp kenn ku ne mu jàpp loola ci wet. njabootu sëñ Touba ga fa nekkoon fépp ca université ba ba ne teg xeer wa kenn ku nekk mu jàpp loola ca ca morso ba. wax ne lim ci jublu. wax ni moom de lim jublu ci loolu muy njabootu sëriñ Touba gi. muy njabootu sëriñ Touba gi. ñu fas yéene yëkkati Touba ñu fas yéene àndandoo ñoom ñëpp yëkkati liggéeyub Touba bi. mu bañ laal suuf mu bañ laal suuf. mel na loolu la sas boppam. nee na dafa mel ni moom loolee la sas boppam. sas ko bokkam yëpp. sas ko nag bokkam yëpp. wane yoon wi itam. wane yoon wi it nag. kon lii daa bokk ci yoon wa. kon nag lii daa bokk ci yoon wa. kon sama mbokk yi maa ngi leen di sant sant bu baax. kon sëñ xam leen sañ seex nee na yéen mbokki boppam yii mi ngi leen di santal bu baax sëñ Mountakha. di sant nag bokki taalibe yi fi daje. nee na mi ngi sant nag bu baax bokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo fi daje. sëñ Mountakha kat buy wax. sëriñ Mountakha kat buy wax. buy wax jëm ci njabootu Serigne Touba. buy wax jëm ci njabootu Serigne Touba. danaan sama sang yi. danaan sama sang yi. buy wax jëm ci taalibe yi. buy wax nag te jëm ci taalibe yi. na sama bokki taalibe. daan nag sama bokki taalibe yi. kon taalibe yi la def ay bokk. kon taalibe yi la def ay bokk. njabootu sëriñ bi mu def leen ay sang. njabootu sëriñ bi mu def leen ay sang. kon sama sang yii mu fi dajale. kon sëñ Seex nee na yéen sangam yii sëñ Moussa dajale fii. yoon woowu rek la jaar. yoon woowu rek nag la jaar. ñoom kat samay sang la. te nee na kat yéen ay sangam ngeen. kon loolu moom. kon loolu moom. <coughs> lu wér la. lu wér la. lu feddaliku la. lu feddaliku la. lu firndewu la. lu firndewu la. kon liggéey baa ngi kon liggéey baa ngoog. maa ngi sant sama sang yi. nee na mi ngi sant sangam yii moom sëñ Seex. nuyu nag sama bokki taalibe yi. na di nuyu nag bu baax bokki taalibe mi. sant ñëpp di sant ñëpp. cant googu ma tàmbalee ci sëñ Moussa. cant googu yi nag mi ngi koy tàmbalee sañ sëñ mii. ndax sëñ Moussa kat moo fi dajale mbooloo. ndax sëñ Moussa kat moom moo fi dajale mbooloo mi. waaye mbooloom sëñ Touba nag dajale leen yombut. waaye mbooloom sëñ Touba moom dajalee leen yombut. ndax da ngay dëggu rek. ndax dañuy dëggu rek. sëñ tubaa nekk sa xol ba fees dell. sañ tubaa nekk sa xol ba fees dell. koo woo koo woo. la ca sa xol la ca sa xol. jàll ci xolam jàll ci xolam. loolu mooy tax ku woote ngir sëñ Touba. Pastef ba nga ko wootee. Pastef ba nga ko wootee. ci lañ lay wuyu si. ñoom ci lañ lay wuyu si. ngir jëmmi sëñ ngir jëmmi sëñ Touba. kon noo ngi nuyu bokki taalibe yëpp. kon nee na mi ngi nuyuwaat bu baax bokki taalibe yi bu baax. sama bokki taalibe yi. nee na mi ngi nuyuwaat bokki taalibe yi bu baax. di leen jottali cantuk Seex Muntaxa. leen gën a jottali nag cantuk sëñ Muntaxa. sëñ Muntaxa day lii rek la bëgg. lii rek la bëgg. bu sañoon waxtu wu nekk. bu sañoon waxtu wu nekk. ñoo ngi daje. ñoo ngi daje. ñoo ngi yëngu. ñoo ngi yëngu. lépp sëriñ bi rek. waaye lépp sëriñ bi rek tax. ginnaaw nag ñun ñëpp gannaaw ñun ñëpp. gannaaw ñun ñëpp. sëriñ bi rek la ñuy wër. sëriñ bi rek la ñuy wër. sëriñ bi rek la ñuy topp. sëriñ bi rek la ñuy topp. te sëriñ Mountakha moom xam na ni muy toppee te sëriñ Mountakha moom xam na ni muy toppee sëriñ bi. jóg na jëm ci sëriñ bi. te jóg na jëm ci sëriñ bi. kon nan daw topp ci moom. kon nag nan daw rek topp ci sëriñ Mountakha. mu yóbbaale nu fa sëriñ mu yóbbaale ñu fa sëriñ ba. la muy sàkku ji. la muy sàkku ji. bu ko amee bu ko amee. ñu am ko ñu am ko. te mooy ngërëmu sëriñ Touba te loolu rek la ñuy teewoo. sëñ Moussa mii nag. nee na sëñ Moussa mii nag. digganteem ak sëriñ Muntaxa. digganteem ak sëriñ Muntaxa. lii mu ci wax doy na sëkk. lii mu ci wax doy na sëkk. waaye dama ko mën a seede. waaye moom mii nag li sëñ Moussa wax moom mii di sëñ seex da ko mën a seede. ndax sëñ Moussa dafa am tawfeex ci sëñ ndax sëñ Moussa mii dafa am tawfeex nag ci sëñ Muntaxa. ndax sëriñ Muntaxa dafa bëgg sëriñ Touba ba nga xam ni. ndax sëriñ Muntaxa dafa bëgg sëriñ Touba ba nga xam ni dafa bëggaale ñu baax ñi àndoon ak sëñ dafa bëggaale ñu baax ñëpp ñi nga xam dañoo àndoon ak sëñ Touba. képp koo xam jóge nga yu mag yi. ndax képp koo xam ne ci këri sëñ Touba yu mag yi. ko ko waxee sëñ Ibrahima Diop. sëñ Moussa mii day bëgg sëñ Mountakha jàngal ko waxee sëñ Ibrahima Diop almasari jo bu bu bi xawee xumb sax. bu jataay bi xawee xumb sax. sëñ Mountakha day wax ne na mujjandiku tuuti. sëñ day wax Moussa na ba bu ba bu mu mu Moussa di Jang. waxtu jataay ba dalee. waxtu bi dem na ba dal. ba Moussa di Jang. ba sëñ Moussa Mi di Jang. Lenen lu fa mën jaar. leneen lu fa mën di jaar. da nga da nga lam teewlu mooy la sëñ Moussa. la muy mooy li sëñ Moussa mii di wax tam jógee ci maamam. ndax Cheikh Ibrahima Diop yi ndax nag Serigne Cheikh Ibrahima Diop almashari. dafa bokk ci borom tawféex yu rëy yi. dafa bokk nag ci borom tawféex yu rëy yi. ndax Serigne Touba ñi itam ñoo ñu am tawféex ci moom. ndax Serigne Touba ñi itam yooyu nga xam dañoo amoon tawféex ci moom. ku ci wax ku ci wax. da ngay jàpp ni kii rek moo wax. dangay jàpp ni kooku yi rek moom moo wax. waaye waxtu woo déglu waxi Cheikh Ibrahima woo dégloo nag wax joo xam ni waxi sëñ Ibrahima Diop almashari la nga jàpp ne lii kii li mu wax kenn waxu ko. da ngay jàpp ni kii moom li mu wax kenn waxu ko. ba léegi rek li ma déglu fii. ba léegi rek li mu déglu fii. ndax ni ñu xamee sëñ bi. ndax ni ñu xamee sëñ bi. ak ni ñuy jàngalee sëñ ak ni ñuy jàngalee sëriñ bi. ak ni ñuy taxe ab taalibe di jariñu ci sëriñ bi. ak ni ñuy taxe ab taalibe di jariñu ci sëriñ bi. loola ñoom ñoom rek ñoo ko mën. loola ñoom rek ñoom ñoo ko man dañoo kenn doon xam sëñ Touba. bu kenn doon xam sëñ Touba. ñoom ñooñee ñoom ñooñee ñoom ñooy xam sëñ Touba. ndax ñoo ànd ak moom ca bu njëkk. ndax ñoom ñooñi ñoo ànd ak sëñ Touba ca bu njëkk. ba muy féex ci saayir. ba muy féex ci saayir. di yaatu di yaatu. ñu ànd ak moom ñu ànd ak moom. tàggoowuñu ak moom tàggoowuñ ak ñoom. mu mel ne lam doon denc lépp. mu mel ni la sëriñ bi doon denc lépp. li ci doomu aadama mën a xam ñi ngi ko doon xam. li ci doomu aadama mënoon a xam ñoom ñi ngi ko doon xam. bañ ko xamee ba noppi nag. ba nu ko xamee nag ñoom ñooñee ba noppi. bëggoon nag ñun ñii ñëw mën cee jariñu. bëggoon ñun ñi mujjee ñëw ñu ñu mën cee jariñu moo tax moo tax ñoom ñu ca doon wane lañ ca doon wane. am na ci loo xam ne duñ ko wane. ndax am na loo xam ne nag ñoom duñ ko wane mukk. waaye li ñu ci wane. waaye li ñu ci wane. mën nañ ci jariñu. mën nañ cee jariñu. ba ba ñuy tàbbi àjjana. ba ba ñuy tàbbi àjjana amin ànd ak sëriñ bi. te waxi sëñ Cheikh Ibrahima Diop almashari ji nag daf cee bokk. moo tax sëñ Moussa mii waxtu koy nettali sëñ Mountakha. moo tax sëñ Moussa mii heure bu koy nettali sëriñ Mountakha. sëriñ Mountakha bu sañoon dara du yëngutu. sëriñ Mountakha bu sañoon dara du yëngutu. ba mën a teewal wax ja. ba mu mën a teewal wax ja. ba yëg-yëg bam mu cee am. ba yëg-yëg ba mu cee am. moom rek moo koy am moom rek moo koy am. moo koy xam moom moo koy xam. mu yëg ko ca mu yëg ko ca. kon diggante sëñ Moussa ak sëñ Mountakha. kon diggante sëñ Moussa Diop mii ak sëriñ Mountakha. li ma ci xam li mu ci xam. te man koo seede te man koo seede. moo bi ma sëriñ Moussa waxee bis bi. moo bi ko sëriñ Moussa waxee bis bi. mu ne ko allahu. mu ne ko incha allahu. bu waxtu wa jotee bu waxtu wa jotee. lu ma mën a jàpp lu ma mën a jàpp. ko bàyyi te ñëw. ndax sëriñ Muntaxa ba mu koy tal. ndax sëriñ Muntaxa ba mu koy tal. di mën a dox di mën a dox. mën a jàllantu di mën a jàllantu. yu mel nii fu mu yu mel nii fu mu masaan amee. amee ci ku mel ni sëñ Moussa mii. amee ci ku mel ni sëñ Moussa mii. day ñëw teg fa tànkam day ñëw teg fa tànkam. amee kum jàpp ngir sëriñ bi. su amee kum jàpp ngir sëriñ bi. xam yitteem ci sëriñ bi. xam yitteem ci sëriñ bi. lu muy yëngu ngir sëriñ bi. lu muy yëngu ngir sëriñ bi. daf ko daan teewee ko daan kon bi mu ko mënul kon nag bi mu demee ba mënatu ko. ñoom ñii rek ñoo war a dem nag di teewal sëñ bi. kon nag ñoom luñ ci tuuti tuuti. dinañ fas yéene yéene. dinañ fas yéene yéene. sunu tànk yi sunu tànk yi. di ay tànkam ay tànkam. ñuy ñaan itam. ñuy ñaan itam. ci barkeem ci barkeem. lépp lu fi tànkam yi waroon a jariñ. lépp loo xam ni tànkam yi waroon na ko fee jariñ. sunu tànk yi jariñ ko. sunu tànk yi yàlla na ko fi jariñ. amin ndax moom mën na ko. ndax moom mën na ko. ma nga fa tam ma nga fa it na Moussa. kon Serigne Moussa. sant nañ bu baax sëriñ Cheikh neena na sant nañ la bu baax a baax. li nga waxoon rek mooy li ci am. na li nga rek loolu rek li ci am. li ci xol yi mënuñu ko wax ci. li ci xol yi ko wax ci lamiñ bi. lin yek ci seen digënté ak bi mënu ko tuddu. lin digënté ak Serigne bi mënu ñu ko tuddu. kon ak cant rek la def. kon ak cant rek ci ak ñaan. ci ak ñaan. ndax yu mel ndax jotaay yu mel dafa am solo lool. dundal gi ñu fiy dundalal sëriñ bi. dundal gi ñu fiy dundalal sëriñ bi. ak ku fi ñëw yëg-yëg gi nga fiy dolli sëriñ bi. ak ku fi ñëw yëg-yëg bi ngay dolli ko ci sëriñ bi. dara da koo jiituwul ci liggéey bi. dara da koo jiituwul nag ci liggéey kon lii nag ñëpp dañ cee war di dox. kon lii nag ñëpp dañ cee war di dox. ndax li nga wax ne dañ ko doon def di ñaanal sëñ Muntaxa. ndax nee na li nga wax ni dañ ko doon def di ci ñaanal sëñ Muntaxa. dafa jaroon jóg. dafa jaroon jóg. jóg wuy ji waateb sëriñ bi jar jóg jóg wuy ji woote sëriñ bi itam nag jar a jóg. kon yëpp ci yëpp daje. kon ñaar yooyu yëpp nag bu nu dajee. ñu doon ko def. ñu doon ko def. ba ren ñu yaatale ko nii. ba ñu yaatale ko nii. def ko ngont mii. def ngont mii. bi ñu fekk ñu yor jukki. sëñ Cheikh nee na bi ñu ñëwee li ñu fi fekk ñoom ñu yor ay jukki. ñëpp di jàng. ñëpp di jàng. kilifa yu baax yi toog. kilifa yu baax yi yëpp toog. loolu xam nañ ne. nee na loolu day xam na ni. lu Serigne Touba gërëm la. lu Serigne Touba gërëm rek la. lu Serigne Touba nangu la. yàlla lu Serigne Touba nangu itam la. Serigne Mountakha it fa mu nekk. wóor nañu ni. wóor nañu ni. na ci yëg-yëgu boppam. am na ci yëg-yëgu ko ko ko gën a leeral. wóor nañu ni. ni wóor ni. xolam dana ci sedd. xolam dana ci sedd. dana ci bég. ci bég. ko nangu. dana ko nangu. kon loolu rek mooy li am solo. kon loolu rek mooy li am solo. kon sëñ Moussa. kon sëñ Moussa. ñu ngi lay doole yónniwaat ab nuyoo. Serigne nee na ñu ngi lay doole yónniwaat ab nuyoo. ci jëm ci bokki taalibe yi fi jëm ci bokki taalibe yëpp yi fi daje. njëkkee ci kilifa yi. njëkkee ko nag ci kilifa yi. nuyoo bu ànd ak nuyoo bu ànd ak cant. ak ngërëm ak ngërëm. ñaan dolli ca. ñaan nag dolli ca. lépp luñ fi def. lépp luñ fi def. yàlla na ko sëriñ bi nangu. yàlla na ko sëriñ bi nangu. jiitalal ñu ci. mu jiitalal ñu ci. sëriñ Muntaxa gën fee yàgg. sëriñ Muntaxa gën fee yàgg te gën a wér. amiin ñu ànd ak moom liggéey bi. képp ku fi ñëw itam. képp ku fi ñëw itam. yitte joo fi indaale woon. yitte joo fi indaale woon. yàlla na ko Serigne Touba defal. yàlla na la ko Serigne Touba defal. ku fi indaale loo bëgg lépp loo xam ne bëgg a tàggoo moom itam. yàlla na la sunu borom tàggale ak loola. yàlla na la sunu borom tàggale ak loola. ci barkeb Serigne bi. sëñ Moussa yow itam. sëñ Moussa yow itam. Pastef bii nga xam ne da nga ca maam ya. jëlee ko ca baay ya. ba taxawal fi lii. na a sàmm. yàlla na la ci yàlla gën a sàmm. yàlla na yàlla may fan wu gudd. wànd ak wér. ba gën a mën a yàq nag liggéey bi. sëñ Ibrahima mii ci biir itam. sëñ Cheikh Ibrahima mii ci biir itam. yàlla yàggal ko fi. yàlla yàggal ko fi lool. te wéral ko. naal yi mu bëgg a defal Cheikh Ibrahima Diop ba naal yi nga xam ne bëgg na ko defal Serigne Ibrahima Diop almashariw mu àggale lépp tàmbalee ci jumaa ji ak yeneen ak yeneen kon sant ñëpp kon sëñ Cheikh na sant na ñëpp gërëm na ñëpp gërëm na ñëpp yéene ji mënees ko wax nee na yéene ji moom mënta wax lépp kon dañ koy tënk foofu kon dañ koy tënkani foofu rek te ñaan ñu dajawaat fi déwén ak ay déwén yu baree bare kenn bañ a manqué te noo ko yéenee foo ko bëgg a yóbbu suñu borom yóbbu la fa ci barkeb Serigne Touba. barkeb sëñ Muntaxa. jërë ngeen jëf nee na sëñ Seex nee mi ngi sàkku nag. bu ñu yeewee. ñu wéyal liggéey bi ñu wéyal liggéey bi. nee na sangam yii itam. toog ba ci kanam. wettali sëñ Moussa. moom it mu demal leen ci beneen liggéey. kon nag loolu rek la jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf ñëpp xam sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke ak alxuraan waaye ñëpp xam sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke ak li nga xam ne mooy xasaay léegi rek fii ngeen toog sëñ Cheikh ñu gën ko xam sëñ Cheikh Lappe léegi la fiy jóge bi mu ñëwee indil ñu nuyoob sëriñ Mountakha Bachirou xalifa général kullu murid bi mu ñëwee indil ñu nuyoob sëriñ Mountakha Bachirou xalifa général kullu murid ay kàddu yu témoignage yoo xam ni jóge na ci sëñ Moussa mii jëm si ci moom waaye jóge na ci sëñ Mountakha it jëm ci sëñ Moussa mii mu nekk jataay boo xam ne léegi rek lañ fi jóge xawtu sax ngeen dajante fi kilifa yëpp nag teewoon nañ fi euh, sëñ Moussa mi ñi am lan del ñëpp ci wàllu doomi soxna ñoom ñii ñëpp ñëwoon nañ xanaa jataay beeg yàggaay geeg ñëpp njabootu sëriñ Modou Bousso Dieng sañ sëñ naa moom mi ngi nii moom kenn la ci sëñ moom itam sëñ Idaalee nga ne di doom ci sëñ sëñ Aliou Ndiaye Guédé moom itam sëñ mook sëñ Moussa mi ñaar kenn la ñëpp xam ko ci xam-xamam waaye bëgg gu mu bëgg sëñ Moussa ak fonk gu mu fonk sëñ Moussa kon ñu ngi leen di seedeel loolu ngir xamal leen ni daal jataay bi moom wéetu ci woon ànd na ceeg mbooleem doomi soxna yëpp ak ñi nga xam ne ñëpp sëñ Tuubaa moo seexal seen maam jataay bi ñëpp teewoon nañ fi ñi fi desandi nag ñoo fi teewal ña dem kon ñu ngi leen di gaaral lool sëñ Fallou Kañ yow ñu ngi leen di nuyu baax di la jaajafal ci taxawaay bi am solo bi ak kii nga xam ci moom mooy sëñ Moustapha jaane ànd ak délégation bi nga xam moo jógee ci kër sëñ Abdou Samane Mbacke moom sëñ Sohaybu ni ko sëñ Moussa waxee woon rek ci appel ba sëñ Abdou Samane moom alxuraan bu doon naka ko rey di ko fay ndax taxawaay bi mu ci am ak pasteef bu mu ci am ndax ñëpp xam nañ digganteem ak sëñ Muntaxaa ci xasaayit bis bi nga xam ne sëñ am sa jaalibatu mi ngi koy taxawal foofu ci jaalibatu laataa muy nekk di sëñ Touba ñëpp xam nañ digganteem ak ki nga xam mooy sëñ Abdou Samad Mbàkke Sohaybu mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim chatli lisaani nawir janaani safi amaani washid baray mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nii nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi di jiital ci nuyoo bi kilifa gu mag gi du Amadou Muntaxa di ko ñaanal bu baax ñu waase dégluwaay nan way kilifa moy wax de kilifa moy wax ndax jataayu kilifa la fi ndax ay kilifa len fi yabal moy di jital ci nuyo bi Cheikh Amadou muntaha di ñaanal suñu borom wéral ko te kartanal ko te nal yi mëna la gël seigne touba yépp mu aggalé ko te sembar yenen tañ ko ak mom di nuyu mboolem kilifa yi fekk ci jotaay bi yépp di nuyu di ziar bu sëñ Moustapha bi nga xam ne moo woote bis bi di bis bu am solo boo xam ne boo fi ñëwee rek xam ne la mu waxoon ca benn bu woote ga moo feeñ ci bis bi muy bisub sëriñ Touba di nuyu mboolem njaboot sëriñ Touba gi ñu fekk yëpp ci turu sëriñ Abdou Samad mu sëriñ bu ci turu sëriñ du Mbacké di doomam di bisimilah di doomam di daa mel ni day faral liggéey kii di nuyu di nuyu itam bu baax waa day day mel oh, di nuyu bu baax itam sëñ Moustapha mi nga xam ni moo woote bis bi euh, balaa boobu itam ñu ngi nuyu mbooleem kilifa yi fekk yëpp sëriñ Cheikhouna Mbacké mi ñu fekk di suñ Cheikhouna Sidi daanaka buñ ko fekkoon rek mën na fay teewal sëñ Abdou Samad doyoon na sëkk ñi fi nekk ñëpp daanaka njabootu sëñ Abdou Samad lañ kon sëñ Cheikhouna ñu ngi lay nuyu ci turu sëñ Ahmadou mu sëriñ Abdou Samad rek moom moom mën di santi itam sëñ musafa, mom la sëriñ Abdou Samad booleeg sëriñ Ahmadou ak man mi ak soxna Lisa mi nga dari ni day lépp sëriñ Ahmadou mu mel na loolu lépp li muy tegtale rek sëñ Abdou Samad yàllaa ko bindee mu doon koo xam ne dafa fonk nitam sëñ Moustapha moo fi naroon a teewal boppam yaakaar naa bi bi muy jot sëñ Ahmadou takkusaan weesu na lu yàgg ba ñuy bëgg ba ñuy bëgg julli timis la muy tegtale mooy moom moo amoon yéene teewal fi boppam moom sëñ sëñ sëñ Samad moom loo ko sori sori wala loo ko jege-jege yii suñu borom dimbali na ko ci man nitam fu nitam nekk tam lu mu roqi roqi dana ko fekk man nitam ba ca ba ca dolli ko nag mooy nitu nit nit ka muy man itam mooy nitu Sëñ Tuuba koo xam ne day yëngatu ci Sëñ Tuuba di xëy ci Sëñ Tuuba di ci gont kon sëñ Moustapha sëñ am Samad mi ngi bu baax te di la ziar te di la ndokkeel nag ci bis bii di la wax ne itam bis bi mi ngi koy ànd ak yow ànd ak yow fi muy tàmbalee mooy jël njabootu boppam yebal ko fi mu ñëw nit jàpp naa ne fépp fu mu war a teew bu fa teew bu fa bu fa yebalee njabootam mel na ni moo fa teew te itam sëñ Cheikh naa mi ngi ci tudd na ci sëriñ Ahmadou ku ne xam na diggante ma sëñ Abdou Samad fonk googu fonk kon loolu la muy tegte la mooy ñam gën a fonk ci njabootam la fi yabal kon bis bi nee na mi ngi koy ànd yow mi ngi ñaan itam ci baaxu sëñ Tuubaa li nga ci yéene wala li nga ci fas ba tax nga wooteel ko sëñ Tuubaa nga daje ceeg lu kawe sa njort sëñ Tuubaa mi nga xam ne ku mu doo laal suuf mu gàttandul la boppam ba fépp foo bëgg mu àgg fa mu àgg fa te weesu ko ci barkeb sëñ Tuubaa te itam la samaam yu baax yi amoon ci ngërëm ak barke te jële ko ci Sëñ Tuubaa nga am celu faw ko sa ndox siñ Sëñ Tuubaa mi koy joxe jógu fi moo fi nekk moo fi nekk ba léegi dafa waxoon ni lu ñeenti téeméeri at ak dara may def may dindi def ak dindi moom bataliwu ko kenn ci loxoom la ne xëy na ñu am yitte tam paseef la sëñ bi faggul lu rëy ñooñu di faggul ñeneen rek waaw kon ku am yitte te am paseef Sëñ Tuubaa du yel la sëñ bi moom moo fi nekk ba léegi loolu moom ko kon nak mi ngi ñaan neena na ci barkeb Sëriñ Tuubaa moomee nak nga dajeeg mo mu bañ la bolé kenn la nga wo ak la nga bëgg Sëriñ Tuubaa dafa sëñ sëñ bi dal bis bi ñor nako lool ñor na lool neen nak mi ngi ñaan nak ñu teewe ko at yu bari ba buñ ci accété mu bañ yabal kenn mu and ak jabotam gépp ñëwal bop mokk mu am barkeb Sëriñ Tuubaa euh, limay léral ni nii itam yaa ko gën xam mm-hmm. ndax sëñ Samat man nga ko sori ta xam ci mom lu bari ndax ay mbirum nëbbatuwul mom mom ci seigne touba ju wér la nek nëbbatuwul laqatuwul ci suñ tubaa lay xëy ci lay gont ci lay dox yaakaar naa looloo tax sax nga duppee ko bis bi kon mi ngi lay ñaanal bu baax nga am ci lu kawe su suñ tubaa dëgëral la kartanal la ba la nga cay la nga cay nësër ak la nga ci bëgg lépp suñ tubaa defal la ci lu faw su njot barke Cheikhouna Amadou Khadim Cheikh Amadou mi ngi njëkkanteeg jotaay bi di nuyu mboolem mbokkam yëpp rawatina suñ Cheikhouna mi doy na sëkk seen diggante moom ku na xam na ko keroog ba ngay ñëw ci màgg suñ Cheikh bi yaakaar naa yéen ñaana àndoon fi ñu fekk keroog lool rek doyna doyna doyna na biñ biñ biñ ko fi fekkee rek sunu xel dafa dalaat bu baax sunu yaakaar dolli ko bu baax buñ jaroon so sañoon ku la boddi di bëre da koy ñaanal mu daan ndax bu daanee nga war ñaar waye bu ko daanee ñaar lay war señ Moussa mi nak ñu dañoo boddi di bëre ndax amna masala dina masla te fonku na nitam man na nitam ndax bari nit ak man saw nit danoo nuru way duñu ben mom man na nitam ndax lu am man nako bok ki nitam te lu ay nitam am lu dut man na leen ko bàyyee fum and ak nit teral la ci dara jam japp naani ku mel non ku ko am nak loolu moy nitu qualité qualité quantité nak duñu ben kon ñi ngi lay ñaanal bax ndax man nga ni rek seigne Ibrahima djob al mashari moy sama mam seigne Abdou Wahab djob moy sama wajur loolu doyna seuk adresse waye terew da nga am sa jomi bop ba am leneen lo xamni ne da nga koo dollil sa bop ndax ñepp judd ku ne am nga judd waye nak lay tax ñu naw sab judd wala lay tax ñu fonku lak sa sab judd kenn ku nekk ya koy liggey wax nañ ko bataay ñu leen li ñuy tudde nopp ci jabot wala kaña kenn gënu leen a judd waaye seen jikko tax fu ñu génn gone yi fari xeer wala yat jikko nag kon lu am solo ndax juddu jikko moo koy kulóor yow nag sa jikko moo kulóor sa juddu kon ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla aar yàlla na sa borom yàlla dafal cat kontaan nan bu baax a baax sëñ Moussa jërëjëf doomi sëriñ bi la bi lu muy def nii e nee na lim ci xam daal mooy sëñ Ahmadou moom doomi sëriñ bi la ab ab taalibeem la ab xaritama ab soppeem la kon su ko yebalee fii ci kër sëñ Moussa mii muy doomi sëriñ Abdou Wahab te sëriñ Ibrahima Diop almasari yu ku xam sëriñ bi dëgg dëgg yi xam dina xam sëriñ Ibrahima Diop li muy peese ci kër sëñ Touba kon sëñ Abdou Samad bu bëggee teew te mënu fee teew tawel fi doomam dib xaritam dib taalibeem dib soppeem mën nañ cee xame ni bis bu mu fonk la kon nag yàlla na yàlla taxaw amin àggale say mébét ci barkeb sëriñ Touba jërë ngeen jëf gàtt na waaye mattale de tubaarkal kon de xanaa mandate. <laughs> télévision